salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum mbokk yi safoo seetaan Thiam TV tey nag ñu si woon fii ci ruq yeeg ruqaat yi xool si ñi nga xam ne tey ñoom ñuy parents yi mooy ni ñuy dundee ouverture école ku ne ouverture scolaire rek xam ni sa xel dina dem ci coono ñëwati na ci parents yi donc ñu ñëw ci yenn ruq yi xool xool naka la ñuy dundee loolu ak ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi tamit naka la ñuy dundee jaay boobu noonu ndax ku xam ni ku xool léegi xam ni dëkk bi xaw naa metti tuuti te xam naa ni parent yi tamit dinañ subir quelques jafe-jafe ci ouverture yi damay dugg nii ci biir ànd ak Baye Sidi ñu xool ñenn ñi ak jaaykat yi lan lañ ñuy indil comme waxtaan ñun ak ñoom damay dugg nii léegi ànd ak Baye Sidi Baye Sidi nañ dem ñu xool waxtaan bi ni muy demee ci affaire ouverture scolaire nuyu naa la fay naa la. parent nga nga fekk la fii ngay jënd fourniture noo gisee fourniture scolaire yi. waaw gis nga bëgg xale yi jàng rek. Uh-huh. parce que école bi yarukaay la. Uh-huh. moo gën bàyyi muy tambaambaalu ci mbedd mi. Uh-huh. mais nañ ñu dimbali wàññil ñu affaire yi affaire yi seer na seer goo xam ne gi mooy loolu boo ci yoree ñaari élèves ñetti élèves ah day metti ak seen yére cahier yi livre yi tout ça metti na trop. ma ñëw fekk la fii sa place bi ngay jaayee ay fourniture scolaire. may eh, ma lay laaj rek njaay mi ni mu demee fii ndax moo ngi dox wala. Ah, njaay mi ñu ngi sant yàlla tuuti tuuti rek. Uh-huh. nam ma doxee moom doxeetul ko léegi. lu tax loolu. ah gars yi nee nañu réew mi métti. Mm-hmm. loolu la Sénégal yi wax de. ok moo tax moo tax faralum di di jënd si souvent. waaw gars daal <coughs> léegi ay partenaires la ñuy gën di jënd moom. waaw ah, yi nga xam ne nii dañ ko jàngee ba pare. ok yooyu daal la ñuy gën di jënd. mooy mooy occasion yi. waaw mooy occasion yi. ñu ngi lay sant bu baax sëñ bi di leen soxna si di leen gërëm baax. Uh-huh. ci présence bi ak teewaay bu am solo bi. Uh-huh. comme dab rek ni koy dundee rek ñoo ngi fii di góorgóorlu. di taxale rek. clients yi di fas yéene jaay sac tout ce qui est fourniture scolaire góorlu sac ak kay yëpp ñu ngi koy jaay incha allah. ok mais mbaa prix yi prix lu metti ci yenn parents parce que lii grossiste la. waaw peut-être mën nañu wax ne métti wut ma nañu wax tamit métti na. dépend ci nit nga xam ne ni moom mooy jënd si. parce que nit kuy jënd si moom moom ça dépend ci li muy indiwaale. Mhm. parfois mën nga ñëw koo xam ne nii mën naa ñëw loo ko wax mu mu prix boobu lay jël. Mhm. am na koo xam ne nag moom loo ko wax di nekk na nga ma wàññil ma te te obligé tamit nga wàññi ko le monde nekk ñu ku nekk rek ni ñëwee rek noonu lañ ko accueillir. fekk la nga toog sa buntu kër ma lay laaj noo gisee ouverture école yi. Mhm. metti na ci parents yi. Uh-huh. moo tax xale aussi mën nañ leen dimbale gën a góorgóorlu ci li ñuy def. Uh-huh. parce que fayal nit neuf mois cher na. Uh-huh. jëndal ko fourniture yu cher mu bugg di daw jàng xale yi nañ gën a góorgóorlu dimbale seen waayur xam ne seen doole tooluwul noonu. dafa métti fourniture dafa dafa cher. gouvernement bi na def effort di ci dugal loxoom. di yónnee ci école yi ay kay ay livre ñu koy tuusal suñ doom yi. comme ñun jamono bi ñu daan jàng daaw ñu jënd livre syllabaire. daaw ñu jënd kaye. lépp dañ ñu ko daan tuuse école. ah pot de encre tout ça. ah année yooyu ak année yu du benn. ay année 1960 yooyu ah. Mhm. daaw ñu jënd dara école. mais léegi lu xale bi yóbbu école da nga kaa jënd. mais tamit njaay mi moo xaw a cher. non non seerul occasion yi seerul occasion lu mu seer seer passé woon wala deux mille. Mhm. waaw. yooyu kay yomb na. kaye yeeg big yi tamit dafa parce que gis naa léegi am ku doon ku doon métti lool ne fourniture dafa seer. dafa métti waaw ñoom kay parents d'élèves bi moom ñu ngi jooy moom. Uh-huh. chaque jour ñu ngi jooy. 1000 francs. ana occasion yi. mooy yooyu daa jeex. dafa mel ni dafa cher. non seerul. mais client bu ñëw demaat parce que yow tamit est-ce que def xéwal. non man maa ngi ciy def xéwal client yi lu am ma jaay leen. Ah. waaw dama am client. yii yii yu bees yi waaw yii mooy yu bees. parents yii lañuy ñuy bañ a jënd. waaw yii am na ñu koy jënd mais bariwul mais bëriwul. am occasion yi. occasion yi boo xoolee. yii yëpp ay occasion ah, nii boo xoolee. yii nii waaw. moo nekk yi ñu jàngee ay quelques année yooyu noonu. waaw parce que yii moo gën a moins cher. waaw léegi yow boo amee yii nii. Uh-huh. boo amee yu màggee dangay ñëw boo ko indee nga dugal ñu joxaat la yeneen nga xooloo si xam nga loolu xewle la. bu dee yu bees la li ngay teg day seer. yu bees yi dafa xaw a cher. waaw yu yi xaw a cher. Ah, <clears throat> yenn parents yi boo si yoree ay quelques. élève. Uh-huh. day xaw day xaw a compliqué mm-hmm. dëgg la. day xaw a compliqué trop trop trop. ok kon yaa ngi def acte social ci entre yi ak yow miy jaay. mi man miy jaay exactement. parce que dañuy jël yenn livres yi ñu ngi jëlee benn prix bi suñ leen waxee prix am ñoo xam ne mën nañ koo jënd uh-huh. am na ñoo xam ne ne mënuñu koo jënd il faut on est obligé on était obligé ñu wàññi prix boobu su fekkee ñun sax dañ ci daanu tamit mais papa xam mënoo di jaay ne à tout moment am bénéfice uh-huh. dafa yenn prix yi dafa nga am ci bénéfice mais yenn prix yi ñu tey obligé nga daaw nga nga wàññi ko tuuti kuy jàng ñu lay jëndal fourniture ñu lay fayal école dañoo bëgg dara ci yow xëy dañoo uh-huh. bëgg yàlla barke la ko mën a téere ñu lay xaar donc ci xale yi nañu góorgóorlu ci seen jëmmi bopp. loolu ngay lancé état bi pour ñu jàpp si. ah mais na trop nañ ñu dimbali. ba pare nag jënd ba pare te xale yi du ñu jàngoo si amul njëriñ. xale yi nañ leen di jàngal. Mhm. nañ leen di jàngal. Mhm. njàng mi moo ci am solo. jënd bi amu ci benn solo nañ leen di jàngal bu ñu dugatee classe. Mhm. voilà da nga da nga gis monsieur yi duñ leen jàngal. professeur ah ñu ngi jàng sax mais njàng mi demeewul noonu. ah ok demeewul noonu. jàng bi baaxul daal. baax na si du mën a baaxul mais demeewul noonu ni mu war a demee. yow xam nga li may wax. voilà xam nga li may wax. affaire yi yomb na affaire yomb na gis nga kii nii. Uh-huh. lu yomb laa ko jaay. Uh. gis nga boobu léegi mu ngi nekk fee di jooytu boo xoolee gis nga paa bi paa bi léegi si foot météo mu ngi nii sama portable bi lañ ko def. portable baa ngi nii léegi ma koy génneel liste bi génneel ko bu ma génneelee six mënuma xaajaat. wàññiwaat ko. waaw mu maanaam li ko lu ko lu ko uh, kii bi doomam bi lu ko envoyé na ko jëndal ma ko ay fourniture dafa bëri. dafa bëri attanu ko. waaw mu ne loolu yëpp moom dafa bëri moom mënu koo jënd léegi bu dee bu dee bu dee deux la moom da koy xaajal bu dee dix la cinq yi lay jënd bàyyi cinq yi. ok waaw soo ba mu ngi toog fii di jooy te bëri na fi ay morom quoi. waaw dëkk bi moo metti dëkk moo metti mais nag affaire yi moom yomb na. waaw ñu ñaan nguur gi mu gën see jàpp rek. yàlla baax na affaire yi yàlla na gën a avancé. mu gën a avancé ñun mhm, tam faaraay gën a am lu ñu ko jëlee ñun tam marsa amila yi ñu gën ñuy jàppale dañuy bàyyi xel xam ne ci réew mi lañ bokk daal. Mhm. waaw ci la bokk. incha allah merci beaucoup ñun ñun ñoo fi nekkal néew di doole yi quoi. Mhm. waaw parce que da ngay gis yenn saa yi euh, da ngay gis parents d'élèves dañuy jógee ko fi dem si ngand magasin yi. na dañuy dem jënd te ñun livre bu bees bi lu ñu leen ko mën a jaayee ñun mën nañ leen jaay livre bu bees 2500 am na parents d'élèves yoo xam ne dañuy rëy dañuy dem si magasin yi jënd ko 5000 ñu jaayee leen wax nga plus de 2500. waaw wax nag ñooñu place bi la dem naa Sandaga dem naa si marché na kantik nangam nañ moom livre nangam. Mhm. ñoom loolu lañ gëm. te da ngay dem si magasin yi jënd fa livre 5000 ñu ñun 2500. ok waaw loolu tax ñun ñoo gën a xew lépp livre bu bees tàq yoo xam ne nii original lay nekk original livre mhm. année bi ren ak mhm. euh, daaw l'année passée donc boo ma doon defal sa bilan ñaari année yi ban a dox am augmentation mhm. xam nga mënu koo defagum sa bilan parce que mhm. on est dans ñu ngi ci biir bi jeexagul kii bi kon rentrée scolaire bi jeexagul pour l'instant nii xale yi rek ñooy ñëwagum parce que grande classe yi ñëwaguñ comme daal ñuy def ay première terminale commencement bi ñëw daal nànk-nànk mais par exemple booy def bilan da def bilan global mais pour l' instant nii ñu ngi ñëw comme ça dab rek incha ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ñëw nànk-nànk ñi ñu ngi ñëw noonu jaay saak keneen ki fi nekk moom man may jaay livre ak tout ce qui est fourniture moom moo garder saak léegi nag man li may jaay maa ngi sant bu baax daal ñu ngi ñëw daal nànk-nànk. fourniture yi métti na mënu ñàkk métti mënu ñàkk métti parce que ku am benn ñaari élèves ñetti élèves ñeenti élèves. dana leen a jëndal fourniture. mais métti na. métti na c'est bien noonu. looy conseillé xale yi élèves xale yi conseillé leen ñu gën a góorgóorlu dimbale seen parents yi rek. ñu góorgóorlu ci jàng bi. yaa ngi yëg sa bopp ci njaay mi daal waaw sant yàlla bu baax ñoo ngi ñoo ngi jënd yi ñu am daal yëpp ñu ñu koy laaj yi am ñu ñuy ñu am. am na yoo xam dem wuti ko. ci yeneen place yi yeneen place après jaay leen ko mën nga ñu fii rek marché Dior lañ nekk cantine numéro cent quatre-vingt-dix gis DK Sénégal uh-huh. ñu ngi nekk marché Dior di librairie bi tudd librairie waa kër borom jaamal Touré et frère képp ku a ñëw rek incha allah mën nga ñëw ma jëmee parcelle marché Dior marché Dior moom siiw na uh-huh. wala boo nga duggee ci car rapide si bi uh-huh. nekk la si wala soo ñëwee ba ci biir la am wala lépp loo bëgg ci lu wàllum fourniture ci cahier bic livre tout ce qui est fourniture daal sixième ba terminale ak tout les séries confondues yëpp boo ñëwee incha allah am nañ seen fourniture. Mhm. tout ce qui est sac tamit incha allah dañ ci def xéwal danañ ko yombale tout ce qui est sac tamit. góor jigéen góorlu sax ba ci góor bi yeeg yëpp daal incha allah boo fi ñëwee di ko defal jàppante bu soobee yàlla. fourniture yi cher na quand même. Mhm. cher na cher na lool kenn du ne cherul. Mhm. mais nag aussi foog ñu jënd ko. tax na parents d'élèves yi bon am na ñi nga xam ne am mën nañ ko jënd am na ñi nga xam ne nañ ko jënd. Mhm. wala buñ ko jëndee aussi dafay métti ci ñoom. ndax xaalis amul. xaalis